nag lii ñu jëm te ñu ñëpp ñu bokk yàlla bu suñu yaakaar tas président Amadou Ba li ngeen wax léegi si Ouest Foire titre foncier yooyu moom moo ñu koy mottali su neexee yàlla incha allahu taala yàlla na ko yàlla mottali si barke. ma ànd defar Ouest Foire bii mën na porter projet Ouest Foire yëpp. président Macky Sall dafa dugaloon benn loi ñu yóbbu ko assemblée gars yi voté ko. na mu gën a gaay moom mu promulgué ko ba tey jii askan wi mënuñoo jël loolu jëfandikoo ci leneen di jariñ parce que leneen titre précaire mu ngi commencé ci ba ngay jëndanteeg nit ki mu jël benn kayit bind nga bind ñu signé def seede loolay titre précaire bu président Macky Sall jëlee lu jaar ci ay service am jamono yooyu ki ñu fi tax a daje tey muy le président Amadou Ba moo nekkoon ministre des finance mu xam jafe-jafe askan bi lool mu waxtaan ceeg président Macky Sall président Macky Sall ne ko loolu de loi lañ koy def mais sëñ bi Laurent dimbali leen ñu jafe-jafe yi ne cité bi muy seen titre précaire na mu nekkee boo wala nañ ko yóbboo sax mu nekk titre foncier te kenn du ci fay dara dimbali leen loolu bokk ci seen projet. ndaxte liggéey moo dëgg te ci lañ nekk kon ñu ngi leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw. ak geste bi ngeen ko defee ñun kontaan nañ ci loolu parce que séntuwuñu ko woon parce que dañ doon def suñu lancement mouvement dong waaye boo leen dikkee ni dinañu bett dinañu neex lool kon dañ la ñuy delloo njukkal di wax ni réew boo koy jox da nga koy jox borom xam-xam ku yaru ku dal te looloo dal ki ñu soxla